ma ba ma tàyyi ngeen soog a def lu baax noblesse dafa am ci gëm naa ni noobal ngeen Dakar Info point net seen émission ganu kër gi tey am mbégte nag dalal ki nga xam nag moom mooy Zipra Zipra nag xam nañ ko si jotaay bi number one def jot na fay am ñaari album ak groupe boobu Eh, laa tey gannaaw loolu tamit def na li nga xam moom mooy carrière solo jot a génn nag benn eh, album eh, dinañ si waxtaan waaye après album boobu également def na ñaari single yi nga xam ni benn bi mi ngi ko tuddupe gisatuma ñaareel bi nag boobu gisatuma mi ngi si ànd ak Abdoulaye Mbaye fa Abdoulaye mbay yàlla ko yàlla xare àjjana waaye ñaareel bi mi ngi koy duppee ki li nga xam ne nag moom mooy jubbanti xale voilà gis nañu vidéo yi nga xam ni ñëpp xàbbe nañ ko ak thème yi si nekk également mu doon lu am solo euh, dinañ waxtaan si li nga xam ni tamit euh, moom mooy say projet am na festival bi nga xam ni mi ngi mi ngi si moom euh, ki nga xam mooy ZIPRA di ko organiser ren mooy ñaareelu édition bi dinañ si waxtaan dañu waxtaan nag également si projet album bi nga xam ne peut-être mi ngi si yooyu yëpp dinañ si xam dara mhm. tey jii loolu moom moo tax ñu dalal ko si kër gi ganu kër gi Eh, dama koy nuyu rek eh, di ko jaajëfal bu baax a baax Abdou Khadre gannaaw bi moo la waxee salaamaaleykum. waaw di la wax eh, maaleykum salaam mon ami Maxu di wax salaamaaleykum ñi seetaan ñëpp internet yi. voilà yaa ngi si dakarinfo.net mhm. ñu ngi lay jaajëfal sa carrière la ñuy taxaw gannaaw bi mu waxee nii Euh, jataay bi number one ñu ngi koy fàttaliku euh, seen début euh, également def nga fa ñaari album jot nga fa am ñaari album ñu ñëw si sa carrière solo si album yi nga xam ni yow tamit jot jot nga ko génnee tuddee ko nag ñun benn mhm. mën nañu ñëwaat tuuti si album boobu nga xam ni moom mooy sa propre album ñun benn mhm. ñu def un petit rappel yan titre ñoo si nekkoon waaw ñun benn soo ko déggee rek mooy l'unité en général. Mhm. l'amour en particulier laa doon wax foofu quoi. xam nga kenn du wax ñun ñun ñun ñun ñaar la ñuy wax kenn du wax ñun benn. dëgg la ba mu ne ñun benn rek. dafa jaaxal ñu bari voilà unité bi laay wax foofu quoi. Mhm. maanaam ñun ñëpp nekk benn lañu. Mhm. voilà foofu laay waxee. léegi album boobu amoon na neuf titres amoon na intro bi dooraat amoon na yar yar laa defaloon ak Aram Thioy. Aram Thioy. voilà amoon na bamba bi ma defaloon ak dab yi mhm. amoon na f mooy femme bi ma defoon nag euh, Baaba Maal mhm. sample bi mhm. amoon na euh, euh, question bi nga xam ne maa ngi wax si jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi woon si réew bi absolument amoon na amoon na wuub wuub bu ñuy wax affaire gars yi nekk si sàcc rek façon sàcc yi nekk xew <laughs> xew si dëkk bu ne comme nu mu mettee rek aw saaw sàccukatu portable yeeg gaz yeeg. ñoom seen di ab te duñ delloo. waaw di ab te duñ delloo ba si ba si léeg-léeg yi ñuy jël sax si réseau kii nga xam ne opérateur téléphone yi nga xam ne ñu fi léeg-léeg. di jël sa crédit waaw sa crédit. waaw wala léeg-léeg genre affaire yooyu. Mhm. waa thème yu yu mel noonu ñoo si nekkoon daanaka quoi. ñoo si nekkoon mhm. euh, gannaaw loolu également euh, nga ni gisatuma nga ànd seeg sa sa sa xarit la woon di mhm. ki nga xam moom mooy Ablaye Mbaye. Euh, mu jóge fii récemment également tamit ñuy ñaan yàlla xare ko àjjana amiin amiin voilà vraiment tamit mu doonoon tamit morceau bu émouvant mhm. euh, mën nga ñëw si euh, seen collaboration ak lu tax quoi le choix d' Ablaye mbay waaw choix Ablaye Mbaye du hasard du hasard man d' abord gëwuma sax hasard la hasard n' existe pas mhm. waaw lépp lu war a xew rek yàlla programmé na ko ba pare mhm. parce que Ablaye mbay boo xoolee su suñu kii mooy suñu premier album deuxième album jotaay ji number one am na son bi ñu defoon ak Njaga waaw maa ngi si doon waxaat mën naa ne gisatuma bi sax mooy suivi boobu boobu tamit samay mbir laa si doon wax dëgg waaw maa ngi doon wax boo xoolee artistes yi mel ni Pape Niang wala mm. Ablaye Mbaye Stevie mm. Wonder dañoo gëm seen bopp moo tax mu yegg ñu léegi nag Ablaye Mbaye bu seetaanee son boobu dëgg si turam mm-hmm. am na fu ñu tase mm-hmm. parce que benn magam sama koñ bi dëkk magam bu jigéen mm-hmm. ma koy mbay di ko nuyu ba mu ñëwee Ablaye mbay takk jabar doon ñëw foofu mu indil ma ko sama kër pour ñu xamante ñu ziyaarante waxtaan mu ne ma yow yow yaa mu njëkk way ci musique yaa njëkk a dugal sama son si musique ndeysaan waaw ñaan naa yàlla ëllëg du def un jour xam naa nañ ma tase noonu noonu yàlla di ko togg un an deux ans trois ans quatre ans mm-hmm. génnoon na sax suñu xel ndeysaan ba yàlla def ma ne xaar lii nii euh, boobu mu ngi tuddoon ndogal son ndogal boobu mu utal ko suite boo xam ne si mm-hmm. damay gën a yaatal paral yi n'est-ce pas gën a leeral noonu la juddoo am Ablaye Mbaye ñu def fi ci featuring boobu quoi euh, gisatuma ngeen def tamit vidéo bi nga xam ne tamit vraiment euh, mm-hmm. mi ngi des si si si si xolu gars waaw mu doon soo xam ne mën naa la tib la mën naa it la parce que foo ko teg ba tey nag ba tey day dugg si xolu gaa yi des si xelu gaa yi à fois gars yi dañuy dañuy dañuy foo ko teg rek ñi nga gis ñi nga jooyloo ñi nga jaaxle loo nest pas nga xam ne di nga rey seen yaram waaw loolu moo tax ma ne la son boobu affaire bu garaaw la daal loolu la gars yi loolu la ñuy wax son bi dafa garaaw non dafa garaaw dafa garaaw loolu rek la ñuy wax point son bi dafa garaaw non c'est vrai c'est émouvant et lay delloo euh, ko def ak yéene tamit ah, waaw daf ko def ak yéene te yàlla dina ko def ndax ndaanaan la woon te ku baax la woon également eh, jubanti si xale si ba tey si si si say thème moi je mm-hmm. vois que également euh, euh, raboo rek pour rab pour mm-hmm. dingaat pour kii mais euh, da nga favoriser ay thèmes waaw waaw voilà jubanti xale et puis nga joué si rôle bu am solo également tamit ak mm-hmm. double rôle bi. waaw mën nga ñëw si triple la triple dama nekk doob ji. nekk papa ji nekk sëriñ bi lépp même personne bi la. Eh da gis muy dóor sam bopp ci biir di wax ak sam bopp doon affaire bu nice ak liggéeyu Gabi Billy Boy di ko si liggéey boobu tamit mm, parce que Jubanti Xale suivi la tamit man damay mm. bëgg di topp topp li may def parce que boo xoolee maa lay wax yar maag aram coy ñoo ko def premier premier album bi tamit ma fàttale ma amoon benn son bu ñuy wax redoublant CM2 dëgg ma doon wax xale bu nekk si classe yi nga xam ne daara rek lay jël mm. xamul dara mm-hmm. nest léegi nag Jubanti Xale bi mooy suitam parce que dafa jógee dafa jógee classe rek école yi doog ay mi janvier mu naan papa ji ren damay dem fee Richard Toll vacances ren papa ji naka yow école waxi <laughs> waxi <laughs> waaw yow moyenne un jël ndaare moyenne un am jël ndaare mhm. war a def cours de vacances mhm. ngay xalaat ay dem vacances coow li nag fa la commencé après papa julli day woor commencé tari alxuraan yooyu yëpp pour mu jàng loolu indi jubanti xale bi pour wala ni mën nga di jàng école mhm. di jàng daara mhm. doo yalwaan du yàq dara te xale ñaar yooyu du la yàqal dara mhm. parce que xale moom bu toll si jàng rek ne jàng waaw kàll ak cax day nàmm xel jàng day nàmm xelu xale te xale mën na téye lépp xale moo gën a gaaw a capté lu bëri mag si jàng mag bu demee ba yam yenn âge rek jàng da koy taay parce que yeneen yitte yeneen soxla mooy ne si bopp bi Mm-hmm. moo tax xale moom bu si tolloo rek na jàng école na jàng arabe sax anglais bu neexee mën na jàpp lépp. Ah, euh, yàlla may na ko yàlla may na xale loolu. may na ko loolu waaw jàng école beeg araab bi boo ko boolee mën mënu la yàqal dara. boo mm-hmm. contraire da lay yokk ñaar yëpp nga teg si léegi ñu ñëw ba tey ñu taxaw si thème bi euh, mm-hmm. tey parent bi yóbbu xale bi si sëriñu daara bi euh, ba naka la war a taxawee. waa xam nga da am ñoo xam ni. dafa am ñaar da am ñoo xam ne dañuy bëgg seen doom di jàng. pour jàng seen diine xam seen diine. am ñoo xam ni peut xale yi ñoo leen sonal ci kër gi dañuy bëgg rek débarrassé wu dañuy dem rek bàyyi leen foofu pour mën a féex ci kër yi mhm. da gis xale biy jàngi papa ji wala yaay ji bàyyi ko mu dem du ko jox àdduwaat du ko jox kay du ko yëbbi du ko jox dara xale lay dem rek toog dëgg ba heure wàcc mu wàccaat dem ñibbi mhm. c'est-à-dire xale bi intéressé wu ko mhm. mais parent boo dugalee sa sa sa doom daara mais au moins war nga jàppale sëriñ daara bi même bu la fayeekuwul bu la fayeekuwul ngay dem di nemmeeku yaa ngi mhm. di ko jox pour muy toppatoo xale bi mhm. di ko jox xale bi muy lekk xale bi muy naan di indil xale bi ay yëre ñuy fóot ay yëreem mhm. mooy li may faral di wax rek jël sa doom yóbbu ko ci daara jox ko sëriñ boo xam ni liggéeyul dara xale bi lay jàngal suba ba ngoon yow nga yóbbu sa doom ci daara xale bi day xëy di yalwaan du jàng dara ndax sëriñ bi la bëgg a indil waaw mais sa doom bu xamul dara bul wax dara bul wax dara ah oui et sëriñ bi également ban ban moom tamit est-ce que waru am fullawu boo koy indil tamit mu am un minimum bu mu lay laaj. waaw am na ñu mel noonu. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ naan. Mm-hmm. Euh, alxuraan. Mm-hmm. man du ma ko fayam. dëgg dama koy def si dënn doomu aadama yi. dama koy def si xelu doomu aadama yi. parce que payum yàlla la ñuy xaar. am na ñoo xam ne dañ naan da ngay jël sa doom dem yóbbu ko jardin di ko fayal vingt mille par weer. jardin français. dëgg buy dem nga jox solal ko ay jus ba mu fees si saag si gurdam muy goûté bi defal ko goûté ba mu fees ay bonbon ay yu kenn xamul si saagam. absolument buy dem oto yóbbu ko sax wala taxi léeg-léeg. Mhm. te buggoo def dërëm si ak kii bi arab bi man dama ko nangu alxuraan bi. dëgg te alxuraan moo gën a kawe yooyu yëpp moo gën am na ñoo xam ne dañ ciy teg loxo nag nag ñett noonu du mën a nekk fay rek. Hmm. waaw fay rek même bu dee fay bi sax après loo xam ne si li kii la symbolique. lu symbolique lu symbolique n'est-ce pas te si loolu laa ànd dëgg parce que oustaz bi day bàyyi temps yëpp moom jàngale rek la am jàngale rek lay def moom laa métier la voilà métier la merci métier la mais boo joxee nag sa doom oustaz boo xam ne liggéeyul dara mhm. day toog di jàngal xale yi mais moom it xale bi da koy yóbbu mu yalwaane du jàng dara mhm. suba ba ngoon bu xamul dara tamit wul wax dara toogal noonu rek boo tax da dafa am ñaari chaîne yooyu maillon yooyu mooy parents yi la mhm. ñaari maillon yi ak oustaz yi ku nekk bu defee wàllam rek jafe-jafe du am coow du am te yalwaat mën na fi jóge comme ni ñu koy waxee parent bi nay jàppale mhm. ustaas bi mhm. si ay dimbal ay mhm. weer bu dee moo koy jox dara mu siy dund di jàppale xale yi ustaas bi tamit nay jàngal xale yi bañ gi leen jalwaan loo bañ tamit lu ñu leen jox rek pour xale yi ñu utiliser ko wala ak ak seen njaboot affaire yooyu quoi léegi euh, ñu taxaw si ñetteelu rôle bi ah c'est c'est important moom xale bi euh, pendant tout ce temps moom tamit am na droit lan mooy yow euh, tey Euh, lan lañ ko war a jox c'est-à-dire moom tey bu doon réclamer euh, loo luñ koy jox moom. en tant que en xale. fii moom fii moom li ñu indi. Mhm. mooy xale moom boo tollee si jàng rek lañ la sant. Mhm. yow jàng rek indi ay résultats yu baax. dëgg mais bu fekkee dañ la dugal jàngoo yow foo a nekk sa bopp bi yaa ngi si babi yi yaa ngi si football bi yaa ngi si géej gi yaa ngi si sàcc mango yaa ngi si dàqante bi ah waaw amoo dara loo def lu dul fo mm-hmm. waa loolu nag boo demee ba nekk mag xale yëpp bu ñu defee noonu kon réew moomu réew réew musuba lay doon ah, bu dee xale yëpp ci foo la ñuy nekk ba màgg mm-hmm. waaw maar day taal yàlla réewum foo lay doon réewum foo lay doon kon yàlla soit di nga gis màgg maar day ay ministres yu ñàkk fayda wala ay députés yu ñàkk fayda ñu si kàddu dëgg ñoo xam ne dara lool la ñu koy éviter moo tax génération bi damay wax ak ñoom lu bari. dëgg dama naa leen jàng parce que li ma gis nii léeg-léeg ça fait peur parfois xale yi ni solo comme de man la li léeg-léeg yi ngeen di solo nii. Mhm. ñu koy solo mooy góor jigéen yi nekk Europe ñu si mhm. bëri ay stylistes ñooy solo nii la. léegi yéen bu fekkee nii ngeen di solo wala nii ngeen di doxalee mais te yéenay doon ay kilifa ëllëg ay président ay ministre ay kilifa directeurs généraux yu mag fii mais damay ragal ñu dem ngeen dem ba màgg de tàmm yenn habitude yi ñu am ay kilifa yoo xam ne ñu ñàkk kili ñu amul benn autorité lañ seen bopp waa ñu kilifa yoo xam ne si saa yi da ngay waaru mhm. waaw man leen nag foog ngeen génération bi ngeen defarawaat bu baax xam ne yéenay doon magum ëllëg yi voilà ñu ngi si euh, ganu kër gi ak yoo xam mooy Zipra ñu ñëw toujours si sa plan de carrière. Mhm. Euh, c' est vrai def nga album boobu def nga ñaari single euh, est ce que yaa ngi tourné cest à su ma ne yaa ngi tourné yaa ngi si def ay prestation spectacle yi comment ça se li nga xam moom mooy sa si say mouvement. waa si si si si si surtout jamono yi nag dañuy bouger lu bare bari mhm. gars yi dañuy jël si yenn soirée de gala yi. concert yi ñu ngi koy joué. macha yenn da ngay gis surtout si. ay ay arbre de Noël yu weesu décembre bi ak janvier février novembre décembre janvier février si yooyu ngay ne mhm. boo si jógee di nga gis yenn soirée de gala yi tamit gars yi dañ lay invité yenn spectacle concert yu am yenn soirée privée yi sax gars mhm. tamit di la invité mhm. ak say kiw bopp yi ngay organiser comme li ma la waaw ñu ngi sant yàlla est-ce que kon yaa ngi euh, bàyyi xel nii wala bokk loolu moo taxoon aussi tamit nga euh, def choix wala nga yëpp option wu euh, di di di góorgóorlu si texte yi maanaam si yi parce que tey euh, soirée de gala yi. Mm. ay autorités ñoo fay nekk. Mm. ay ministre ay ay ambassadeurs. Mm. ñoom ñoo fay nekk. Euh, tey li nga wax noonu arbre de Noël yi xale yi ñoo fa nekk. peut-être c'est mais gis ñu fa rappeurs yëpp wala gis ñu fa artistes yëpp c'est-à-dire thème la ñuy gën a wut. Euh, alors loolu nga sóoraale woon. waaw loolu la man xam nga man sama rab loolu laay liggéey man toujours damay conscient conscientiser di sensibiliser. di yedd di yeete. Mhm. nest pas di bégal xale yi tamit toujours nag day rester ci cadre boo xam ni. Mhm. du déranger kenn du am du am injure du am insulte du am dara loo xam day déraper. n'est-ce pas moo tax mooy li nga wax nii dëgg la. Mhm. parce que c'est pas n'importe qui wala n'importe comment wala n'importe quoi. Mhm. ak si lu mu mënti doon la ñuy jël rek euh, jox ay rappeurs wala yenn yenn artistes yi. Ah ñuy joué si ay soirées yi nga xam ne ay kilifa ñoo fay toog. Mhm. parce que daa gars daa am lu ñuy seet. Ah daa am lu ñuy seet parce que léeg-léeg da ngay gis yenn rab bi bruit bi day bëri. musique bi musique bi day bëri day mhm. bëri. day compliqué si wax wala day compliqué si ñoom wala léeg-léeg kàllaama bi du neex a dégg. kàllaama bi léeg-léeg day gaaw yenn rappeurs yi. Ah. wala kàllaama bu gaawul day ñagas. waaw bu ñagasul day day day day naqari si nopp <laughs> moo tax euh, man toujours bu may liggéey rap damay liggéey si côté yooyu yëpp soit musique bi day neex d' abord mhm. kàllaama bi day set bind bi day set bind bi day day day day éducatif tamit l' écriture mhm. waaw day am sens tamit mag da koy déglu xale da koy déglu waaw man si lool laa parce que bëgg naa di jouer comme ni nga wax du ay soirée de gala yu bari mhm. bu dul fii muy fii ak feneen bëgg naa tiim xale yi di wax ñuy jëriñu si li may wax mu bañ leen a gaañ muy moo tax toujours bu may liggéey damay liggéey euh, biit yoo xam ni musique rap boo xam day neex a dégg. Mhm. voilà musique rab bu neex quoi en général. Euh, sa relation ak yeneen euh, artistes yi surtout les les rappeurs comment ça se waaw man moom nag wax dëgg yàlla ñëpp ma jox respect parce que ñëpp laa jox respect n'est-ce waaye ñëpp laa forum ñu ne la respect. Mhm. waaw maa kenn xaar ma yàlla aw maa kenn lu ñaaw ñëpp nag ñi fi nekk début yi ba ñi fi nekk ñu ndaw ñi waaw ñi fi jiit woon ay PBS ay Daara ji P France bi bu bees sama gars ñoom ñi fi nekkoon ñëpp. samay mm-hmm. waay lañ. Mm-hmm. n'est-ce relation bu baax. Mm-hmm. ba ñi nga xam ne si mooy ñu mujj ñëpp. Eh, naka nga gisee rab bi actuellement ñu mujj yaa lañ tudd eh, est-ce que naka nga leen gisee booy yi ñëw. waaw waaw xam nga euh, génération bu nekk ak euh, lu muy dund ak lu muy sentir. am nga ñun si rab classique bi lañ nekkoon. taba tey ñu ngi siy dóor. Mhm. n'est-ce pas te da gis ni rab classique boobu sax moom laa lay wax mooy gën a dox si yenn milieu musique yenn soirée yenn kii parce que da ngay toog déglu ko aisément yenn yi. n'est-ce pas nag ñu ngi si trap bi ak afro trap bi. Mhm. trap bi c'est bien c'est bien mais léeg-léeg dama siy dégg ay euh, kàllaama yoo xam ni wala ay bind yoo xam ni amul sens trop. Oh. gars yi rythme bi la ñuy topp rek di dem te léeg-léeg rab bi yëpp nuru. waaw yëpp nuroo man toog naa fenn benn booy génn album nii si benn télé. Hmm. mu teg son bi femme bi ne ko mais yow xanaa sa album bi benn nit a ko liggéey mu ne ko pourquoi mu ne ko parce man damay déglu biit yi damay déglu biit mais dafa mel ni benn son bi rek laay dégg mu ne ko pourtant ñaar dafa mel ni benn biit bi rek laay dégg parce que trap moo mel noonu ñoom li ñu bëgg yëpp dañuy def tum tum tum tum leer rek ngay dégg. ok n'est-ce pas baas bi ak. bi dañuy nuroo. ba booy ni ñuy rabee sax day nuroo léeg-léeg ñoom ñëpp si trap bi. Mhm. moo tax day dem ba mel ni benn musique bi. day dem ba monotone merci. Mhm. loolu la quoi moo tax léegi foog ñuy varier affaire yi mhm. xëy na dellu si waat tuuti si si classique bi am yeneen ñu yokk yeneen ñu ci defar ba affaire bi xaw a wute tuuti quoi léeg-léeg diw day rab keneen ñëw rab nga def ni même person bi la ndax ñoo nuroo nu ñuy rabee wala diw di imité diw ba yor baatam nuroo nu ñuy rabee mhm. waaw te loolu moom day dem nag ba da ngay wax day restreint monotone quoi est-ce que yaa ngi pensé également génne un waaw deuxième album bi ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci boobu ba tey xam nga rek dañuy def di defaraat donc waa yombul yombul yombul yombul si moyen yi xam nga producteur amatul premier album yi maa ko génnal sama bopp ak li nga wax ak gisi jàpp si jàpp deuxième bi tamit xam naa noonu lay demee ñu ngi ci liggéey bi jàpp ci combat bi quoi waaw defar nañ son yu bare bari léegi so à chaque fois man nag damay dem defaraat defaraat ba mu gën a nekk li ma gën a soxla ak li nit ñi gën a bëgg mu doog génn quoi d'accord du rek yow man yow sax yow mën nga ko keneen ak keneen mën nga ko mm-hmm. mais génn li nit ñi ak li nit di yëg moom moo jafe quoi moo tax toujours si loolu la ñuy nekk di si liggéey duñ taay benn yoon mm-hmm. à chaque fois mën nañ jël benn son defar ko deux trois quatre ba cinq fois ba heure buñ koy soxla rek nga xam ne lii daal neex nañuy doog ko génne quoi Consent Fest muy sa festival bi nga xam ne initié nga ko mhm. euh, def nga euh, première édition bi ñu ngi si ñaareel édition bi mhm. euh, suba lay doon si le 28 mm. ans waaw le 28 incha allah mooy samedi donc voilà donc mën nañ si ñëw taxaw lan lan lan moo la inspiré wala lan moo la lan moo la nga taxawal festival boobu. waaw waaw xam nga festival mi ngi débuté depuis deux mille deux mille quinze décembre deux mille décembre deux mhm. euh, parce que dafa amoon benn ONG bu nekk fi bu tudd Saag Seyba. Mhm. ñu amoon benn traité boo xam ne Marrakech la woon euh, fële Maroc. Maroc euh, traité boobu day consister à gis ni silmaxa yi. lu mhm. ñu mën a lire si livre yi nga xam ni yéen moom ngeen di liiree. d'accord léegi te pour ñu lire si livre yooyu. foog ñu def ko ay format braille. wala format yoo xam ni ay ay logistique yoo xam ni logiciel yoo xam ni day ma dañ ko mën a lire day am audio mm-hmm. mais yooyu mënoo ñëw rek maxu génn livre am ay copyright droit de nga jël ko rek bëgg ko def si format yooyu mënul ne tey mënul ne parce que yëfu jàmbur léegi nag traité de Marrakech boobu moo doon yoon may pour am droit di di def di jël yooyu di ko def si format yu ñu arrangé noonu si loolu nag lañu doon xeex ba ma jël kii boobu tuddee ko festival Consent di conscientiser ak di sensibiliser nit ñi ak autorités yi si affaire boobu si festival waaw si festival boobu Consent Fest mooy mm. festival de conscientisation et de sensibilisation léegi nag festival bi dafa am particularité parce que nekkul festival yi nga xam ne day am par benn at ñaar ñett ba ñett man loolu jóg taxul jóg festival bi festival mën na am benn ñaar ñet ñeent yoon si benn at bi mm-hmm. ça dépend parce que ah, maxu mën na am leen lu mu bëgg a sensibiliser wala lu mu bëgg wax wala dara mu ñëw na zip xaar ni la ñuy collaborer nga bii le 28 la ah le 28 juillet bi mën na mhm. amaat si biir at bi waat mën na décembre wala parce que maxu mën na ñëw am benn projet ñu liggéey ci di tëgaat festival bi mhm. woowaat yeneen artiste sensibiliser waat nit ñi conscientiser waat loolu quoi mhm. festival bi lii mooy particularité am ok et même bu ñu nee festival euh, ngay jànkonte waaw waaw mooy xam nga rek gis nga moo tax ma indi thème festival ren bi le 28 <laughs> bi mooy financement des personnes vivantes avec un handicap dans le domaine de la culture. ah d'accord waaw difficulté yi toujours mooy moyens yi. mooy moyens yi. parce que yow xam nga ni musique bi yombul. Mhm. producteur amatul te lépp da nga koy fay. producteur amatul lépp da nga koy fay mais gars yi jëndatuñu CD yi. jëndatuñu CD yi jëndatuñu kele yi gars yi dañuy téléchargé rek <laughs> kenn xamatul nu mu demee. mooy loolu. Mhm. moo tax ay événement ngay mën a teg n'est-ce mhm. pour tamit yenn artistes yi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw mën si am dara tamit. lool la. da ngay gis son son et lumière bi da nga koy fay. estrade yi da nga koy fay siège yi barrières yi. autorisation n'est-ce pas autorisation yi. yi da ngay fay. police c'est benn tab du police rek boo amee des police ba pare da ngay indi beneen sécurité privée. boo xam ne ñii ñooy gunge artistes yi ñuy dugg seen oto dama ko ñëw ñii ñooy régler kii bi si biir. c'est compliqué c'est compliqué ba pare affiche. Mhm. flyers pub télé pub rajo ba <laughs> yooyu yëpp nga koy fay te ñuy taf affiche Cheikh da leen fay waaw moo tax xaalis moyen bu bari bari bari lay laaj mhm. waaw te moyen boobu léeg-léeg du du mate moo tax da nga gis festival boo gis ren mën nga ko bañ gis déwén ak déwén géeg c'est vrai da gis tamit festival yu judd yu bari du yàgg ñu deewaat te balaa ñoo dekkiwaat yàllaa xam te est-ce que dinañ dekkiwaat mhm. parce que manque de moyen ngi ñaan eh, autorité yi tamit état bi parce que festival bi da gis mbir bundi nañ parrain yu bari mhm. parrain yi bari mais ba ñii may wax nii affaire bi mën nañ ne suba la mais kenn réagir kenn réagir te parrain yi bari nañ marraine yi bari nañ mais kenn réagiragul waaw man nag man du ma man hmm. man comme waaw alaa accu la ba cinq minutes avant festival bi di commencé sax man naa dundee yaakaar nit ñi mën nañ ci jàpp n'est-ce pas gars si jàpp si yenn artistes yi tamit yenn artistes yi gën a mën si jëriñoo tuuti parce que thème bi aussi tamit loolu dafa am solo voilà thème ko waral mooy da gis artiste bu hmm. handicapé bu dem di wut financement muy banque muy si mutuelle yi wala dara mais boo indee sa document lu mun naa naa bu ñu la xoolee boo dee handicapé rek. dañ lay ragal yow dañuy def ne doo fay voilà dañuy def ne doo fay. moo tax foog ñuy ñaax. Mhm. Euh, ñooñu noonu ñi nga xam ne ñoo yor voilà leen ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yor kii yooyu banque yi mhm. ak état bi mhm. ak sax suñu mbokk handicapé yi wax leen ku si nekk fan ngay jaar ak nan ngay def nan la ñuy collaborer ba ñuy mën a jot si financement yi eh waaw parce que dangay ngay gis festival bi sax avec avec le soutien du fonds de développement des cultures urbaines mhm. ñoom dugal nañ ci seen loxo waaw di leen sant di leen gërëm mooy fonds bi président teg pour culture urbaine waaw di ñaan ngeen ñëw jàpp si parce que affaire yi yombul yombul dafa dafa dafa métti quoi dépense yi dafa bari bari bari métti lool quoi métti lool Euh, yan avantage la ñu mën a euh, am si si xam mooy festival bi yaa ngi koy bi mooy ñaareel yoon bi mm. euh, njëriñ bi waa njëriñ bi xam nga mooy li ma la wax rek di nga gis artiste handicapé yoo xam dañuy toog ay weer du ñu joué waaw dañuy toog ay weer duñu am na ñoo xam sax at disons du ñu presté mm-hmm. du ñu joué mm-hmm. ñooñu chance dañ ñëw joué tamit wone waa seen art mm-hmm. te festival yi bu dawee la plupart da nga gis télé yi dañ koy wone yenn yenn réseau réseau sociaux yi dañ koy dañ koy tegaat te di gis am connexion yeneen festival bitim réew mhm. wala yeneen festival si réew mi yi lay woowaat pour yeneen concert wala yeneen festival wala yeneen tournée n'est-ce pas ñun dal nañu festival bi ñu nekkoon muy ànd festival ànd mhm. festival da doon daw di daw ba ñu yeneen festival boo xam ne Orphée festival la ah festival handicapé yi nekk mhm. defee biir château de Versailles waaw si biir château bi si théâtre château bi lañ defee benn bi ñu ko defee mantelage yooyu ñaari scène la dina tax ñu xam artiste bi dina tax artiste am yeneen ouverture yeneen connaissance waa si réew mi ak bitim réew dina tax tamit muy wane aaram voilà en parlant de réew mi donc euh, porteur de voix nga am nga handicap également bu la dab tey ñu ngi on parle de de de de de bus ah mooy transport yi on parle de pont on parle de de de d'autoroute à péage ak yooyu yëpp écoles yi hôpitaux yi est-ce que handicapés ñu ngi si seen bopp est-ce que ñu ngi leen si sóoraale waaw waaw yooyu kii woowu parce que maa ngi déglu rek démb si benn rajo. Mhm. Euh, chauffeur yi mu ne ah, ah, gars yi di kaas handicapé yi ñu ne bu ñu arrêté oto rek. Mhm. car rapide tata wala bu dee handicapé rek affaire day du leen faal da leen tànkam rek daw. day dem après ñu dem laaj chauffeur pour pourquoi loolu ñu ne ñooñu ñooñu dañuy tardeel. bu dee mag mhm. wala handicapé dañuy tardeel quoi. ma ne ko mais ça veut dire que nit ku ñuul moo amul benn politique. ak benn vision ci àndi handicapé. c'est grave ma ni kon bu doon nit ku ñuul rek rek kase kase kase. Mhm. handicapé dina sonn parce que bu doon nit ku ñuul rek handicapé bu tànkam dagg du am prothèse tànk. parce que xalaatu ko créé. xalaatu ko créé ah. ñoom lu ñu xaar rek mooy mu sarax ñu sarax yàlla ñu sarax ko <laughs> parce que bu doon nit ku ñuul rek loxo prothèse loxo handicapé nit ku ñuul di ko créé. bu dee nit ku ñuul ñuul ñuul rek ma ni est-ce que kon ñi nga xam ne ñoo tëx dinañ leen defar appareil boobu nga xam mooy tax ñuy tax a dégg daal mais bu nit ku ñuul kase kase est-ce que portable bii ma yor nga xam ni voice lay day wax ak man mu mën sa utiliser est-ce que man dinaa ko utiliser kon ça veut dire nit ku ñuul moo amul benn vision ak benn xalaat benn politique si handicapé ñoom na nga sarax saraxu rek ñu yalwaan la alors boo demee Europe yenn dëkk yi dañuy jox gëdd handicapé da nga gis même boo liggéeyul sax am njaboot dañ lay fay am na ay subvention ñu lay jox wala ay ndimbal ñu lay jox par weer ah n'est-ce pas mhm. même boo liggéeyul sax dinañ la la taxaw te foofu nee naa dëkk bu la jo gën a jox gëdd handicapé gën a respecté ay handicapé gëdd boo dëkk boobu la gën a développé si laa jëm gis nga mhm. si laa jëm ñëpp ça veut dire que ñu bëri xam nañ loolu léegi-léeg sax kilifa yi xam nañ ko mais dañ ciy dëgg seen tànk par pourquoi parce que léeg-léeg xëy nañ leen jox ay sarax yoo xam ne handicapé yi lañ ko war a sarax wala nga peut xëy na bëgguñu mu jeex <laughs> mais mën nañ ko jeexal <laughs> parce que boo xoolee bariwuñu un pour cent nga xam ne trois pour cent si population bi mañ leen leen jàppale si ay financement ay di mais si financement yoo xam ne yu significatif la mhm. pas ay muette parce que léegi la nga jot financement yoo xam ne boo ko jotee mhm. yow woo moytul fa nga jëlee financement ak fa nga ñibbi boo si passé mu n'est-ce euh, pas euh, doo si mën a liggéey dara mhm. moo tax finance financement yi dafa war a doon ay financement yoo xam ne yu dëggal la yu baax yoo xam ne boo si investir mu jur leneen kon ça veut dire que africain moo mel noonu surtout particulièrement Sénégal la ñoo mel noonu mhm. loolu toujours affaire xeebaate la nag xeebaate bi lañu war a baax moom moom handicapé mën na handicapé si loxo si tànk si bët si gémmiñ si mais mën nga ko bañ a ëpp xel yow mi handicapé muy dëgg man maa la wax lii te yor sa tànk see mën handicapé mën na la ëpp xel fuuf ëpp la njëriñ si réew ëpp fuuf parce que handicapé mooy koo xam ne nekk nga si réew dërëm jotu la nga nekk ponkal di lekk di naan te amuñu réew mooy handicapé absolument ñu mel ni man ak man malgré ay handicapé la mais terewul ñi ngi teg ay affaire yoo xam ne am na valide yoo xam ne xalaatuñ ko teg ñi ngi dugg foo xam ne dem foo xam ne am na valide yoo xam ne xalaatuñ ko wala a mm-hmm. a courage bi am volonté bi mais léegi gars yi da ngay gis dañuy ragal wala ruus toog seen kër duñ bëgg a génn parce que am nañ lu ñuy ruus wala am nañ lu ñuy ragal wala dafa mel ni société bi da leen gedd alors que c'est mm-hmm. loolu moo fi war a jeex man a tax man loolooy sama combat pour mm-hmm. ñu jox handicapé yi gëdd jox leen cër c'est un cri de cœur euh, c'est l'artiste sans Zipra moom mooy wax ah. et que vraiment li mu wax tamit lu yanu maanaam lu ñu mën a dégg la. lu ñuy dund la lu ñuy. dooguma la mais li ngay wax noonu tamit bâtiment yi foog ñu defar ko ah. bâtiment yi bâtiment yi bus yi foog ñu defar ko ba mu adapté ak silmaxa yi ak handicapé yi nga xam ne ay moteur lañ pour mën si dugg mën si yéeg. absolument parce que da ngay gis handicapé boo xam ne dafa war a dox ay yitte. Mhm. yor ay dossier war ko yóbbu dem ba si benn immeuble du mën a yéeg. du mën a yéeg du mën a waaw yooyu tamit war nañ ko seetaat quoi boo demee Europe moom laa la wax yëpp dañ koy defaraat bâtiment yi dañ koy defaraat ba mu adéquat ak dund handicapé bi dañu jox cër respecte handicapé c'est important dañu jox cër respecté seen handicapé yi voilà ñu des si euh, li nga xam ni pour terminer si festival bi Consent Fest si euh, si wàllu jàppale bi mm-hmm. euh, lan ngay xaar pour ñu soutenir li nga xam moom mooy l'idée mais bi nga xam ne suba la looy xaar comme comme comme comme si war a jàpp waaw ba tey ñi ngi xaar seen moyens yi ñi ngi xaar seen seen seen soutien yi soutien yi mooy financiers yi moyens matériels yi mu mënti doon ñi ngi xaar soutien yi parce que ku si nekk ah, ñi nga xam ne jot nañ leen bind euh, lettre ñëpp ku si nekk jot nga sa courrier mhm. ku si nekk waat naa la téléphone mhm. ku si nekk envoyé waat naa la message ba démb démb rek mhm. n'est-ce pas deux jours avant waat ku si nekk envoyé naa la message kon jot nañ affaire yi xam nañ affaire yi gékka si na yegg na waaw te organisation bi metti na te moyens yi matewul waaw kon war nañ ci mën a jàpp bu baax a baax mm-hmm. waaw ba dernière minute nag ñoon duñu découragé ñu ngi leen xaat leen déglu rek mm-hmm. xam ne ñun seeni doom lañ mm-hmm. waaw seen i jarbaat lañ seen i raq lañ seen dëkkandoo lañ seen i mbokk lañ waaw te si réew mi lañ bokk si réew mi lañ bokk te dañ ci bëgg a dugal nag suñu suñu contribution si doxalinu réew mi si eh tabaxu réew mi eh dañ ci war a dañ ci war a bokk ñëpp nañ xam loolu ñëw ñu rek toog pour courager les baraa ni ngeen déet ñu nañuy bokk ci biir ñuy defar ku tabax ñu tabax defar ñu defar waaw loolu lañ war a loolu si loolu lañ nekk nii. voilà loolu nga montré donc euh, mënoo fi ñëw en tant que rappeur ba ba dem également te euh, doo ñu may dara euh, si si benn freestyle am loo ñu may rek si même bu dee benn couplet may ko ñi nga xam ñoom ñoo lee seetaan. si waaw man comme d'habitude rek comme d'habitude pour gën a sama identité. nit ñi gën a xàmmee ñi xamul woon. Mm. xam ñu xamoon gën a xam. Mm. ñu fàttaloon ma fàttal leen mooy comme d'habitude li may def. yow lu mel ni la sa maam daan wax ndogal du wees mm-hmm. duniyaa saa yoo xëyee gis ko am naqar bu bees mm-hmm. man école depuis Grand Dakar laa defee primaire am entrée en sixième dem Blaise Diagne def fa secondaire nekkoon si benn groupe janvier 2000 ñu génn cassette teg si ay semaine génn suñu clip yaakaar a feeñ si beneen facette dañ ci teg quelques semaines mu mel ay gën si man sam bët yi tàmbalee lëndëm ma mel ni ku gëlëm dëkk si lëndëm xàmmeetuma dërëm ak përëm ñi ma xamoon bu may gis ku ma tasal di ma yërëm naan Abdou Xaadar yàlla na nga war a jàmm foo dem gis ku baax gis fa gor gis fa jàmm balaa ngay xam ñi la bëgg dëggantaan te yàlla tax nga am problème téeméeri xat yi ma amoon tey gi su bëri dañ maa yéem xale jigéen ñi di ma daw xam nañu mënatumaa gis sama yaay am naka restis di ko jooy ay bisi bis yow yëpp forever forever indi loxo bi yaa jëf maxu jërëjëf yaa naa la waaw la mot de la fin lan ngay tàggoo waaw di la ziar di la gërëm si invitation bi. ñoo ko bokk waaw di ziar euh, ñëpp ñi xam ne ñu ngi suivre. n'est-ce waaw di ñaan nag Sénégal yi ne leen ñun ñu ngi fi Zipra mi ngi fi ñu mel ni ñoom ñu ngi fi nañ leen ñaanal bu baax a baax di leen taxaw di leen jàppale. amiin waaw xam ni lu ñu lu si juble rek mooy euh, handicapé yi nekk si àdduna nekkin bu rafet dundin bu rafet nekk dans de bonnes conditions seen bien-être moo tax a jóg. Mm-hmm. n'est-ce moo tax ñuy sonn di si kaas di si wax di si dox di ci def mhm. waaw di ñaan tamit euh, yàlla yombalal ñu loolu xal ñu yoon wi te nit ñi tamit jàppal nañu si mhm. waaw xam ni mbaam gàtt na waaye si jur gi la bokk waaw ci réew mi lañ bokk di ziar di nuyu ñëpp di jéggalu ñëpp àkk bu dee dafa am euh, moo yoo xam ne wala wax yoo xam ne dafa déplacé ndax euh, li si jub lépp yàlla la mais lu si dëng nag ñun Zipra production euh, moom nag euh, deuxième édition festival Consent Fest la foofu nag si Grand Dakar garage euh, samedi 28 juillet lay doon à partir de 19h gars yi nañ fa daje Dakar Info dina fa teew ak Dakar 92 point com bu ko defee dara du leen ump si festival bi dañ ko couvrir bu ko defee ñu ñëwaat également tamit dugal éléments yi ngeen mën ko suivre si même site bi. Euh, di leen jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup Zipra merci a tous les internautes ñu ngi leen jaajëfal et Omzo si réalisation bi kontaan bu baax a baax na si lépp nga xam ne vraiment ñu doon bàyyi xel di leen dig daje beneen yoon si beneen numéro ganu kër gi ak benen daanaan incha allah Omzo ba ma lu baax soo ko def